xam nga ñun ay euh, jàngalekat lañu yoo xam ne dañoo bokk ci ay kuréel yu ñu tuddee syndicat ñu bokk njàng mi ak njàngale mi ndongo daara yi bokk ko ak jur yi bokk ko ak ñeneen ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñoom école mooy li nga xam ne fa la ñuy tàggatee doomu aadama def si moom ay melokaan def si moom ay jikko def si moom xam-xam ba bu ëllëgee mu mën a am place dimbali ay waajuram mais aussi mu liggéeyal réewam ba réewam nekk réew mu naat loolu moo tax ñu gis ne école lu Sénégal dafa am ay jafe-jafe depuis presque ñaar fukki at mais ñu gis ne jafe-jafe yooyu li ko indi mooy koom bi ñu si war a dugal matewut muy benn problème mais mu am aussi que tey dañu dem ba nga xam ne école bi nga xam ne mooy école askan wi ñu tuddee ko école publique nit ñi dañ ko xaw a soofantal parce que dañu jàpp ne école bi dafa nekk école bu bëri problème gerew yi jàng dañuy du ñu jàngal xale yi loolu da ngay dégg askan wi di ko wax am na ak amut li si am ñun ñi nga xam ne ñooy toogal fii jàngalekat dañ ko war a nangu mooy école yi ubbeeku yi si ëpp jàngalekat yi ñoo koy ubbi école yi si bëri ñoom ñooy nekk déclarant responsable mais gis nañu tamit même bu fekkee ne ubbi ko même bu ñu nekkul déclarant responsable gis nañ ni ñoom ñoo fay dem di li ñuy tuddee xarimat mais dañuy gis ne yenn saa yi dañuy bàyyi seen i heure di dem di jàngale ji fële wala ñu gëree fii dem jàngale ji loolu nag dañu jàpp ne loolu ñun suñu bopp la ñu war a ndëpp commencé ndëpp bi mooy waxante dëgg ne loolu jaaduwut leneen li mooy privé mënta ñàkk parce que tey soo doon xayma euh, tout tànk yi war a dem école toll nañ si ñeenti million mais benn million bi ak genn wàll gi privé bi moo leen yore kon ñooñu bu privé bi amul woon kon xëy na du ñu mën a dugg école te dugg école dafa nekk farata kon privé bi am na njëriñ mais waruñu ko jox dayoo bu ëpp li ñu war a def mooy fexe ba école bi nga xam ne mooy école école askan wi ñu jox ko jumtukaay yu mat sëkk ba nit ñi yaakaar bi ñu aman si moom ak nam daan doxee bu njëkk ba ñu fexe ba loolu ñu delloo buum si booy booy loolu mooy suñu taxawaay moo tax ñu bëgg a def benn kuréel goo xam ne kuréel gi day ëmb ndongo daara yi jàngalekat yi kuréelu jàngalekat yi euh, euh, way jur yi ñu lëkkale suñuy doole waxtaan seet fi nga xam ne fa lañ mën a jaar ba nga xam ne koom bi dinañ ko mën a yokk ba nga xam ne day am njeexital si école bu boobaa garew dootul am su boobaa njàng mi dina gën a ñoŋ xale yi am xam-xam ñu jub def si ñoom ay jikko yoo xam dañuy jub parce que lu ñu mënti def te xale yi li ñuy tàggat muy doomu réew mi jubuñu timit réew mi du jëm kanam ñun loolu mooy suñu illa loolu nag moom la ñu bëgg a waxtaane suñu biir def ab lël bu ko defee beneen lël bi nga xam moo si topp mooy ñu dajale benn kuréel fekk na ñu defaat suñu bataaxal yoo xam ne yu mucc ayib la dem toog ak ñi nga xam ne nag ñoom la yàlla jox réew mi ñu yore ko seen loxo ñu ne leen ñun kat li ñu jàpp mooy njàng kenn du ko foyee ñun jàpp nañ ni fii da ngeen fa war a yokk koom parce que loolu mooy tax ñu tàggat jikko ak melokaanu nit ñi ba bu ëllëgee ñu mën a fonk seen réew am citoyenneté lu ñu warta def duñ ko def nekk c'est li ñu war a nekk ñëpp jubal